mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen sargal bu baax a baax ci ànd ngeen ànd ak noonu fii ci télévision bi nga xame ne moo di 2STV yàlla dogal itam ñuy def li ko tàmbalee altine ba alxemes ay waxtaan yoo xam ne yu wuute lay doon mu di ay mawduwaat yoo xam ne yi lenn lu nekk daañu ko ci waxtaanee jagleel ko koor gi yàlla dogal itam tey ñu war a waxtaanee li nga xamee ne moo di al i'tiraaf ala ma qadallah maanaam nit ki nangu li nga xamee ne moom la yàlla dogal loolu nag dafa nekk lu lu yaatu lool ndax i'tiraaf boobu maanaam le fait que nga reconnaître ne suñu boroom lii la dogal dogal ba nag ak lu mu mën a tëddee mën naam sax muy bu la gënal wala muy dogal boo xam ne bii gënalu la dafay dem ba ci wàllu nguur yi ñi falu ak itam li yàlla wax ca ci alquran ca saaram wala nga xamee ne moo di ale imran aaye ñaar fukk ak juróom-benneel ba mu ne wax ne daal waxal ne man yàlla may ki nga xame ne may buuru buur yi te maa moom nguur qul illahuma malikul mulk te yi tamit moom ci boppam mooy jox nguur ku ko neex tuutil mulk man tashaa'u mooy fab nguur di ko jox ku ko neex waaye itam mooy rocc nguur itam ci ku ko neex maanaam bu la yàlla falee waxtu wu jeexee rek jeex na kon nag ki bëgg place itam day war a def i'tiraaf ala ma mu nangu ne yàlla subhanahu wa taala moo dogal maanaam loolu boo ko nangoo da ngay daal di noppalu nangu dogalu yàlla ci aaya ba tamit ba muy jeex innaka ala ba mu daan ko bi yadikal xayri innaka ala kulli shay'in xadir dafa rëy ndax yàlla ci loxoom waxin la maanaam yàlla ci boppam moom léppam yiw la waaw léppam yiw la waaye nag lenn lu am itam lu mu mën a doon lu nekk yàlla subhanahu wa taala moo ko dogal dogal ba nag mu nekk xayr wala mu nekk char yow ci sa bopp rek yow mi nga xamee ne yaa di jullit bi mooy da nga war a accepte da nga war a nangu li suñu borom dogal moo tax xeex sa nawle te xamoo lu ko fa yàlla tege ci bakkaar yi gën a màgg ci la bokk ci kabaayir yi la bokk ndax loolu danga nga weddi ndogalu suñu borom eh, nit tam nekk ci makkaan mu mën a doon loolu sëriñ bi dana ci ñëw léegi ndax moom moom waxtaan wi nga yaakaar ne daf laa sonal nga ne na fi jóge loolu ko am xel du ko def moo tax ñu dalal fi Cheikh Tidiane Mboup mii tey mu war a waxtaanee nag al i'tiraaf ala ma qada allah te moo di nangu dogalu yàlla sëriñ bi al kallaamu maak tafadal bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man walahum bi ixsanin ila yawmi ddin mm-hmm. eh, mbokk yi ñuy déglu ak di ñu seetaan ci seen télévision 2STV fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaari ci weeru koor wu tedd wii di leen itam balu àq tabaarakallaahu di siyaare eh, suñu kilifa di suñu taawu wayjur di imam Daouda Mbuub moo ko rakkam ju baax ji oustaz Mouhamad Mbuub di ziyaare itam alxalifa attijaani muy Serigne Abdoul Aziz Sy di xalifa général de Tijaan ñaan yàlla yokk fanam ak wéram Euh, tabaarakallahu fa mu bëgg a mission xadaratu Cheikh El Hadj Malick mu àggale ko fa ci jàmm di nuyu di ziyaare itam a Cheikh Seyd Zidi Makhtar Mbacké moom it di suñu wayjur tabaarakallahu nekk xalifa général bu murit ak ñi nga xam ni ñoom la jiite lépp yàlla dëgëral ko moom it ca aaral ko waaye itam di nuyu mboolem fu kilifa nekk ci senegal ak fudul Sénégal muy kilifa diine muy kilifa aada di nuyu oustaz Haj Malick tabarakallahu mi ngi bay euh, sasam ci waar wi ci anam gëm gën a rafete euh, tabarakallahu ci yaroom ci xam-xamam ci yaatalam waaye itam di nuyu borom kër gi e, Sayid El Hadj Ndiaye di ku yàlla baaxal tabaarakallaahu ñuy taseeg ay nit ñoo xam ni lu ne la leen di defal ñu mënoon ko wane ci télé bi parce que ay jëf yu rëy lay def waaye du bëgg sax ku ko xam ñu xam ñun ci dara kon moom it ñi ngi koy nuyu ak mboolem personnel bi nga xamee ni ñi ngi fiy liggéey ki fi gën a mag ba ki ci gën a tuuti di ñaan yàlla jàpple leen aar leen ci barke weeru koor yi ah mu mel na xaas Malick comme ni nga ko waxee euh, jullit ci boppam toujours dafa am ci ay normes yoo xam ni ci la war a jaar ca yàlla mooy suñu boroom yàlla mii suñu boroom léeg-léeg dafay am lu koy neex mu décider ko ci jaam bi def ko léegi loolu mooy farata yàlla mais farata jaam bi lii farataam mooy mu nangu loola yàlla teg ca moom mooy al itiraaf ala ma mooy nga reconnaître lii yàlla def ci yow loolu mooy suñu waxtaanu tey mais pour ñu jël ci benn partie parce que dafa yaatu nangu dogalu yàlla ci côté yu bari la waaye ñu mën ci tànn rek li nga xam ni mooy suñu actualité ci jamono bii di ko dund muy wàllu nguur xam nga yàlla dafa am ci aaya bu ko indee ci ñetti xaaj bismillahi rahmaani rahim aoudu billahi min alcheytan irajim bismillahi rahmaani rahim yàlla dafa ni qul illahuma malika al mulki ñëpp ni tekk mu ni tuutil mulka man tachaaw ñu ni ah wax jóg na de mu ni wa tunsiul mulka mi man tachaaw ñu ni waaw mu ni wa tuz wa manta man ñu ni waaw mu ni wa tuzul wa tuzillu man tasaau yépp nag bi yaddikal xayr kon nag innaka ala kulli shay'in xadir Haj Malick foofu liñ fi war a jànge mooy comme que yàlla ekkati na ni man may jox nguur ku ko neex kon dañuy jàpp ni ndeke ki ko yor joxu ko boppam mais ki ko ñàkkit xañu ko boppam yàlla moo koy joxe moo koy xañ bu ko defee pour nga def itiraaf bi maanaam félicitation bi rek du doy Haj Malick xëccoo naag Haj Malick gañe na ma ma ni ko félicitation no parce que su fekkee félicitation bi ci lamiñ rek la yam ca soo tëddee sa xol du ko mën a du ko mën a attan doo nelaw su boobaa itiraaf bi kenn du ko compter waaw nangu gi kenn du ko compter su fekkee itam da nga ni félicitation ci lamiñ ci sa bët bii mi ngi tegu ci lu mu def ci yiw nga suul ko waaye lu mu def ci safaan nga nga feeñal ko su boobaay du ñu mën nangu euh, ixtiraaf ca mooy dogal bi ni nangu naa ko kooku kenn du ko mën a reconnaître mm-hmm. su fekkee ni it xas malik maanaam félicitation bi ci lamiñ teewul yéene bu bu ñaaw boo am teg ko ca kooka la gañe ca bu rafet boo am yéene ko sa bopp su boobaa kenn du ko d'accord kon lay tax ñu d'accord tey ci politique nag rek. non ci côté yëpp la Hadj Malick ci côté yëpp la. Mhm. waaw dem na ci ba ci élaw bi jàng dend ak moroomam mu ëpp ko ay point wala mu ëpp ko xel sax dem na ci côté boobu dem na ba ci ñaari jigéen ñi nekk ci ci kër di sëy sax dem na ci dañ ko ma jagleel rek ci côté bi mais yaatu na. Mhm. bu ko defee Hadj Malick pour nga mën a nangu dogal bi dafa am ñett yoo xam ni moom la nit ki di làmbaayoo pour ñu mën a reconnaître dogal boobu ni kii kat li mu dogalu yàlla bi nangu na ko bi ci njëkk mooy ashukru ala ma qadallah waaw xëccoo nga yàlla xañ na la nga xam ni kat xañoo sa bopp yàlla mooy joxe xañ na la nga ne alhamdulilahi rabbil alamin xam nga lu tax yaa ngi bokkoon ak koo xam ni ëppoo ko daraja maguloo ko gënoo ko juddu mu mën a ñëw fi nga taxaw di xëccoo ca yàlla joxu ko tànk yu tax mu mën a joti foofa kon yow ma yàlla jox tànk yu mën a joti bay xëccoo suñ la xañee rek santal yàlla waaw sukuru ba nag du jaagi ni wax ci lamiñ mais looy jëf la ca mooy nga jàppale ko waaw jàppale ko ca la muy def heure bu xëccoo jotaate nag nga di ko kaay ñu defaat mooy sukuru bi bi ci tegu mooy asabru ala ma qadallah nga muñ nag waaw muñ muñ nga doo xalaat ni xoolal maa doog maa ngi moom ñoo doon xëccoo am na teraanga bii ma ngay dem dërëb sàngam déedéet da ngay muñ ni maanaam nit am na ko ca talu da ngay muñ ni it maanaam tey su la fi loon doo ko tal ca loo nettali rek jig na la kooku mooy asabru mhm. ba ca mujj nag mooy aniyatul xaalisa mooy nga yéene ko yéene bu rafet ci lii nga xam ne gañe na la ko parce que heure boo ko yéenee rek bis bu dikkee ci yow rek doon la nga la nga la nga defoon innama al amalu bi niyat wa innama li kulli imriin maa nawaa xaas mhm. malik baraa na koy xëccool nga yéene ko safaan mais xamuloo li ngay xëccoo parce que yaay xëccoo da nga koo soxla mais heure bu ñëwee ci yow nag ci heure boo yéenee safaan su dikkee ci yow rek safaan ba day del si ci yow loolu lu jar a bàyyi xel la xaaj malik mhm. ci côté yëpp nag heure boo yéenee nit safaan ca lëm la ëppalee wala la ngeen doon xëccee mu gañale ci na rafet rek parce que bal bi day del siwaat ci heure bu rafetul si dellusiwaatee rek dal ci sa kaw. ci lu wér waaw gis nga soo taxawee ci miir nga jël balu teng si diiru maanaam kattan nga nga ko sànnee rek force boobu lay dellu si lay dellu ci yow. mooy inna euh, mooy innamal amalu bi niyat kon bu ko defee ñetti yooyu lay lamboo ki nga xamee ni gañe nañ ko ci lépp lu mën a doon mu def itiraaf bi ca mooy reconnaître bi il faut que mu làmboog ñett yi waaye du jaagi ni rek félicitation ci soo tëddee doo nelaw félicitation ci sa bët bii nga teg ko ci loo xam ne dana ko def ci safaan rek nga fexe ba feeñal ko déedéet waaw bu ko defee ki nga xam ni it moo yor nguur moom it dafa war a def itiraaf bi ca mooy nangu dogal bi ni ah lii kat gënuma ña ma doon xaccool ëpp ma leen daraja mën naa am sax ñu ëpp ma xam-xam ëpp ma leen at mën naa am sax ñu ëpp ma ko mais dogalu yàlla moo ñëw kon nangu naa ko ñu ni waaw kooku moom su ko nangoo nan lañ koy xamee comme que ki ñu gañe moom wax na ñett yi ñuy xamee yi ñuy d'accord ni def na i'tiraaf bi léegi ki nga xam ni gañe na moom naka lañ koy xamee mu ni aaya ba waaw aaya ba de ca yàlla moo ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma jëlee yonent yépp nga raw leen ma teg leen ci seen kanam ngay shafiul umam waaw ngay xaatimul anbiya wa imaamul mursalin lenn rek la gis nga loolu raxma la bu jóge ci man yàlla ñëw ci yow raxma boobu nga jël reconnaître ko nag moo tax maanaam nga mën a nooy ci seen kanam soo jàggoon ci seen kanam rek du sotti sa xol bii it bu ko bu ko feñ-feñil di ko dëgëral nan ko nooyal waaw fa bima rahmatin min allaahi linta lahum walaw kunta fazzan xaliisal qalbi lan fadu min xawlika kon nag faafu anhum wastaxfir lahum wa shaawirhum fil amri fil amri su yooyu yëpp jeexee nag ba nga xam ni nag décidé am na mu ne fa iza fa iza azamta fa tawakkal ala allah ndax inna allaha yuhibbul mutawakkilin gis nga yooyu la ki gañe di làmboo ñu mën a xam ni moom it nangu na ni yàlla moo ko jox su dul yooyu amul rek dañuy nangu ne moom defe na ni njàmbaaram na ko ca booba sa booba seytaanee ko gemb ca ku seytaane gemb rek bis dana ñëw mu yenu la daaneel ci suuf <laughs> ci lu yooyu mooy lan mooy li yàlla wax yonent bi yërmaande bi ma indi kat moo tax linta lahum fa bi ma rahmatin min allaahi linta lahum yërmaande gi yàlla indi ci yow moo tax sa xol nga mën a nooy ci ñoom waaw na nooy ñépp ci ñoom bu leen gëdd soo nekkoon di koo xam ni danga leen di foj di leen dikkile di wowal sa xol wallaay duñ mën a nekk ak yow wala suñ nekk ak yow duñ la yéene jàmm gis nga xaas Malick mhm. baraana ku nekk kilifa ñàkk pexe moo tax wanul kilifa ga gannaaw waaye bis bu xëyee yéene ko safaan ndax defin yam koy def moo tax mhm. waaye baraana ku nekk kilifa yi ca sori ko bis bu xëyee dana bëgg a jege kilifa gi ndax yiw woom séq ak moom di ko ñaanal yiw mhm. kon nag njuumte yi nga xamee ni ñi ngi koy def yow ki toog moo xam président bi la moo xam borom kër gi ci këram la moo xam ki jiite atelier bi la moo xam chef de service bi la. Eh, moo xam imam bi la moo xam imam bi jiite sax la. moo xam chef de quartier bi la ak fu waay mën a nekk la nga jiite rek ña nga jiite fa'fu anhum rëcc rëcc yi ñuy def xas Malick baal leen ko waay ndax yaay seen kilifa parce que yàlla mi bàyyi ñëpp tànn la heure boo nangoon yàlla la rek rëcc rëcc yi ñuy def ci sa gannaaw da nga leen ko baal. parce que ki sol mbubb moo xam ni moo gën a jot mbubb yëpp nga jiitu ci kanam xaas Malick noo mën a def ñu dëgg sa mbubb ñi topp sa gannaaw parce que jotaay baa tax ca ñoom jotlewuñ bu ko defee yooyu ki jiitu moo koy bàyyi xel fa'fu anhum na nga jëllale nga leen jéggal de yenn yenn yi wastaxfir lahum nag mooy tooñ yañ lay tooñ di la ko def mais nga baal leen ko bokkuñ al afu la ak euh, euh, al istixfar mm-hmm. bii afu bi dañuy juum di def léeg-léeg ci sa biir liggéey nga am loo juum mu ñëw ah sëñ bi du nii defal nii hmm. wala ci sa biir ñi nga gouverner sax ñu am ku ca juum nga ñëw ni ko ah danaa la pardon parce que li juum mais su ëllëgee bu ko def wastaxfir jëlahum nag mooy tooñ nga hmm. waaw parce que il faut que bis ñëw nga nga nga nga nga nga nga am loo tarxiis hmm. tooñ baat yu ñaawee lay sànneeg da ngaa mel néeg defoo néeg yëpp nga xam ne rek yaa jiite wastaxfir lahum nga baal leen mm-hmm. ba ci gën a am solo nag xaas Malik mooy wa shaawirhum fil amr ca mooy amuloo droit décider xaas Malik borom kër bi nekk ci këram di joxe dépense amul droit jekk-jekk rek décider ci këram loo xam ni woowul ay njabootam non amul droit aada moo koy def loo nit ñu ni voilà kii mooy borom kër gi kii mooy mooy mooy directeur societé bii kii mooy nangam ba tax lu la neex def non kii mooy président de la république bi kii moo non jamais oo oh, leen nga nga ni leen man kër damaa bëgg a def lii déglu leen nag parce que baraana ku fa nekk ca raw la xel baraana ku fa nekk ca gën laa rafet yéene garaan baraana ku fa nekk ci ëpp la xam-xam mais lii yàlla moo la ko def nga déglu leen wa fil amri waaw mushawara rek bu al mushawara kenn ku nekk daf koo war a def ci loo mën a doon rek même sa soxna sax de def ak moom mushawara sa soxna mhm. a ah, soxna si kaay man de damaa bëgg a def nangam ak nangam ak nangam loolu mooy communication bi rek jeex na bu ko defee mu xool ba xam su la waxee loo xam ne xam nga ni lii kat lu dal xel la nga topp ko ca loola donte jigéen la su la waxee loo xam ne xam nga ni nga ni ko askan ah, nga defe ni suñ defee woon nii du baax mais loolu moo war président moo war directeur société bi moo war a imaam bi ci ju jàkk ji sax bu mu ni may jiite rek heure bu ma neexee ñëw julli non non nañ waxtaan ba xam heure yi noddu yi heure yi julli yi yi salaatu yi nañ ko xam nañ ci déggoo mais nañu demit ba xam ni su waxtu wi jotee ca ñëwul am nañ droit jiital keneen buñ ko xaar hmm. yooyu yëpp mushawara moo koy indi wa shawirhum fil amr kon même président bi amul droit jékki-jékki rek décider nono Omar ibnu Xattaab nee na képp koo xam ne day def ca du diisoo nee na toujours ci njuumte lay dëkk waaw laa tafaloo shay'in illa bil mushawara su mushawara amee rek yoon dana am waaye su amul rek échec mooy am bu ko defee su yooyu yëpp amee nag nga xam ni kat kon kii nangu na ko ki ñu gañe ci ñetti yañ waxoon muy sukru ba muy sabru ba muy niya xaalisa ba ki nga xam ni moo nekk ci pouvoir bi moo xam pouvoiru kër la wala pouvoiru gouvernement la wala pouvoiru société la wala pouvoiru sax maanaam euh, euh, euh, journaliste la wala lu mën a doon ka fa nekk njiit la muy nangoo dogalu yàlla mooy yii ñu wax ca mooy nooyal xolam ak xalaatam bum leen gëdd dégg nga su boobaa nay diisoo ak ñoom na leen di jéggale na leen di baal yii kat mooy tax moom it ñu nangu kenn ku nekk am na sa wàll léegi ñooñu jeex beneen bi ci des beneen partie bi mooy wattu izzu bi mhm. man ak wattu zillu bi mhm. al izz la ak zillu mhm. yàlla nee na may jël nit fekk group bu doon trent personnes yàlla nee ma jël ci kenn mu ëpp leen wërsëg wala mu ëpp leen doole wala mu ëpp leen daraja wala mu ëpp leen kàddu ba fa kàddu mën a àgg ñeneen ñi mënuñ fa àgg gis nga kooka su boobaa maanaam toujours la balaa valabaloon ca kële mooy valable ci moom ci izza bi parce que boobu c'est personnel yow rek la concerné mais nag na ci séddaale ñi nga àndal parce que la tax mooy bis dana ñëw comme nam dafa woon nas uba fële ca mulku ba parce que mulku bi su ko jëlee ba pare it yàlla nee na su ma la ko joxee ba nga toog defe ni yaay borom kër ga bis dana ñëw ma yebal malakal mol malakal mawt mu rocc ruu gi gis nga nas u la tudde foofu wa tunsi um mi man tasaaw waaw yàlla ne su ma la joxee la nga jiite ci nguur moo xam ci kër la wala pouvoir la walla lu mën a doon yàlla nii bis dana ñëw da koy nocci gis nga fële sillu la wax da koy jëlaat da koy nocci gis nga izza bi dafa def zillu la ko indil mais mulku bi nag nas u la ko indil parce que dañ koy rocc mi ngi mel ne yow mu jël sa pusa nas heure bu la neexee rocc pusa euh, wëñ gi kon ki jël nguur noonu la gis nga suy taanu du ko yëg Hadj Malick mhm. amul benn président boo xam ne ñaare sooy daanu danga ngay yëg ni da ngay daanu parce que da ngay dem ba naagu fekk yàlla nee na dama koy rocc mu bett la nga ni yoo affaire bi échec na nangam nangam parce que nas ubi moo tax du la mhm. préparé su doon zillu rek day préparé mhm. moo tax moo tax watun siu watun siu nas u moo tax gis nga nas u toujours xaaj malik du préparer lu ñuy xëcc la rek mu deñ mais izza nag mooy zillu bi kooku day préparer parce que ki amoon bala muy ñàkk rek dana am ay fee yu feeñ du dégg bu baax bu baax xam naa baax li waaw loolu moo tax fële ca mulku ba mu indi nas u bi wa tunzi ul mulka mimman tasha su boobaa maanaam ki ko yor na xam ni ah man kat maay waaye bis bu ma koy ñàkk du ma ko yëg gisoo ku nekk ba mu yàgg ñu ni eh, eh, eh, nekk tey ci suba balaa guddee jun ñu ni coup nañ ko jóge na fa gisoo ko. ah kay. ah bu ko bett sax. lu ko bett lu ko bett bett ñi mu àndal. wala élection ñëw nga yaakaar ni tey jii da ngay gañe dem ñu battre la. doo xam fu am mbir yi jaar parce que su boobaa da koo moomul ña la gañe moomuñu ko naf su bee tax yàllaa ko moom rocc na ko. Mm-hmm. te jot na. te jot na sa cëf sa bu jotee rek du du baale mokk ci àdduna heure bu dikkee rek fa mu jote rek la la koy joxe. waaye fa mu jotee it la koy dindee mhm. bu ko defee yooyu soo ko xamee rek da nga mën a nekk ñi nga nekkal ci anam mais ña nga xam ni it ñoo nekk ci sa gannaaw daa ñu am honnêteté boo xam ni daañu xam ni kii kat yàlla ko fi teg ñu bañ koo fakkatal parce que soo ko fakkatalee it du tee mu dem ki yàlla jiital Hajj Malick soo ko fakkatalee it yow yaay sonn waaye du tee mu dem kon nag bàyyi ko ca nga jéem a ñaan la nga am loolu mu am nga ñaan yàlla lu ko ëpp yow mhm. loolu mooy jullit mooy rolu jullit bu ko defee kenn ku nekk nag da am part waxuñu rek maanaam euh, euh, politiciens yi noonoon dañoo wax même ki ci biir këram même ñaari wujj yi même xale yi ci école bi di jàng même ñi bokk service bu ñuy liggéeyee moo xam rajo la télévision la moo xam place liggéeyukaay bu mu mën a doon chauffeur yi nekk ci benn garage bu ñuy liggéey garage su mécanicien yi ministre yi kenn ku nekk ba ci jaaykatu jën ya na xam ni kat kii nga xam ni moom la jiital naa ko topp rafetal sama yéene ndax ëllëg bal bi man naa ñëw ci ñun te su rafetul su ñëwee ci man rek ma sonn maa la ko wax et te d'ailleurs moom bi mu koy jeexal xam nga mhm. danga wax léegi ne mhm. wa tudillu mhm. daal ne foofu tegu fa mulki mi man tasha daal ne bi yedikal xayri muy benn mu ne innaka ala kulli shay'in xadir daal di waxaat nag foofu nag dem ci temps bi nag tuuli ji layla fi nahaar mu ngoog tuuli ji nahaar fi layli fi lañ jëm dafa jóge foofu yëg ci jaww ji fi lañ jëm si <laughs> waaw parce que bi mu indee loolu ba pare ñëw ci izza bi issa bi tedd ku tedd kooku yor su koy dindi nas ul euh, tu zillu la koy def zillu dafay jekki-jekki rek ñu naan ah moom de jaayam na këram nga fee jaay na oto ba fee société ba tëñ na xam nga mi ngi indi ay fee jekki-jekki bañ ni yoratul dara kon heure boo ko yoree rek na nga fàttali ko loolu heure boo fàttali ko loolu rek doo gundu xataal ñi nga nekkal mooy tu zillu bi mooy zillu bi mhm. dégg nga yooyu yëpp nag bi mu amee yàlla daan ni kaay nag mhm. xam nga la muy bañ mhm. mooy ni lii ma ñàkk xaas maali ga tax kurus gi ma gisoon muy yor kay di ñëw sama kër xamoon naa ni jàmm taxul waaw woo gi ma woo këram jox ma lekk dafa am lu mu ca def xamoon naa ni jàmm taxul ba ma ànd ak moom bërëb sàngam bi ma ñëwee rek lañ ma wàccee déedéet looloo tax yàlla nag ni bi yaddikal xayr mm-hmm. moom rek moom rek mel na dafa am ku ko ko waxal moom gis nga balaa xaal alquran de mm. dafa mel na yàlla moo doon dox ba mu yàgg mel na am ku ko waxal mel na ma ni la yow xaas malik bi yaddikal xayr waaw ndax innaka ndax innaka naka yow yàlla mm-hmm. ala kulli shay'in qadirun aji am kàttan nga ala kulli in lépp lu mën a doon rek am nga kàttan ne décider loolu sa kenn du la ne bu ko décider foofa daal di jeex léegi gis nga mu daal di indi nag pour di la ni mën na ko te mm-hmm. sañ na ko mu di la indil exemplaire parce que soo waxee nit ba pare pour mu dégg ko da ngay indi exemple. misaal misaal al amzila bu wane ni lii la mu ni nag waaye kaay waay yow mi ñu gañe bul jaaxle mais yow mi gañe it bul tiitaru ndax tuuli ju layla fi nahaar wa tuuli ju nahaara fi layli ca ba ca gën a yéeme sax wa tuxrijul xayya min al mayiti wa tuxrijul mayiti min al xayyi mhm. synthèse bi soog a ñëw danañ danañ ci ñëw léegi muy wa tar ba gis nga yàlla ni gannaaw bi yëpp nekkee ci sama loxo ba pare maay fekk loo xam ni day dund ma génnee ci lu dee waaw waaw luy dund ma génnee ci lu dee danañ koy misaale naan ganaar a ngi nii nen nekk nii ganaar day dund d'accord ay ay am si la yu ñu mën a dégg la mais gis nga fa ko tax a jóg ca gis nga xas Malik toujours damay wax ne alxuraan gis nga fa bi ma rahmatin boobu yonent bi nekkatu fi xam nga ci ñi muy valable njiit yi. waaw ah, parce day continuer. day continuer njiit yee ko moom. non buñ jël rek di ko adressé ci yonent bi naan wala yonent bi lam manoon ndax ba dañoo def chaqu chadrihi génnee lumbu ya defaat ko benn defaat ko ñaar looloo tax lim man kenn non non non bu ñu réeral nit ñi ci loolu nañu jël aaya bi képp kuy njiit rek jëlal aaya bi xam ne dal na ci sa kaw. fa bi maa rahmatin Mm. gannaaw yàlla moom ñëpp la waxal. ñëpp la waxal waaye nag léeg a amanu léeg-léeg mën a yaay Yohannas yenn saa su boobaa day distingué. waaw foofu nag dafa séparé. waaw day séparation day am. waaw mais moom léegi ah yaa waaw léeg-léeg. heure bu mu ko defee rek. Mm-hmm. heure boo gisee yàlla séparé ci alxuraan rek dafay doon loo xam ne lu jëm ci moom la directement seetlu ko. Mm-hmm. heure bu séparé rek day doon loo xam directement moom la concerné. Hmm. parce que yoonu kenn nekku ci waaye heure boo xamee ni maanaam li muy wax maanaam personnel la maanaam intérêt la pour pour nit ñi su boobaa maanaam du ko du ko du ko def tafsir ñëpp ko bokk ñëpp a koy bokk parce que dafa généraliser la la la la la bëgg ñëpp bokk li xam ni moom rek moom moom moom moo nguur moo am kattan li si des nañ ko seddoo waaye lépp loo xam ni lu jëm ci moom la rek soo xoolee su ko neexee distingué tàqale ko def kon daal fa fa bi ma ra fa bi ma rahmatin min allahi jooju yonent bi dëgg la nekkatu fi mhm. waaye mën nañ ko appliquer ba ci imam bi ba ci imam bi. ndax problème yi am ci jàkka yeeg. jeex na parce que léeg nga gis ñu ne voilà jàkka ji imam bi nee na heure sàngam pourquoi imam bi est-ce que mooy décider heure non na julli ñëpp taxaw ñi ci quartier bi di julli ñu xool heure bi exact mhm. waaye imam du ñëw rek ni nangam wala julli jot ñu ni su imaam ñëwul duñ julli fan lañ ko teg. wala boroom kër gi nekk ci kër gi di bëngeen ci kër gi lu ko neex def ni mooy borom kër gi non jamais. wala chef de service bi nekk ci société bi employé ya fay liggéey mayu leen jàmm ni lu ko neex def ku mu neex dàq la sant dara ku non du noonu. Mhm. nga ñu jël aaya bi ñu jàng ko toujours damay wax ni ñi ñi ñun ñiy waare ci rajo yeeg télévision yi nañuy seet actualité yi nga xam ni c'est important ci jamono bii ñu di ko dund ñu di ko wane. te mooy aaya bii nii gis nga su weeru koor jotee dafa am sama benn xaritu oustaz bu reelu dégg nga su weeru koor ñëwee mu ni hii shahru ramadan la si unzila fil quran dana daj lu ne. <laughs> waaw parce que kuy kuy kutiba aleykum siyaam parce que kuy waare dana ko mais gis nga bii moo waroon a daj lu ne ci actuellement parce que njiit yi sonal nañ ñi ñu jiite ci côté bépp nag moo xam borom kër gi la moo xam imam bi la moo xam chef de village bi la moo xam chef de quartier bi la moo xam dégg nga chef de gouvernement bi la président de la république kenn ku nekk rek yaa ngi defe ni yow la ca fekk yàllaa la fa teg mhm. dégg nga parce que même même imam bi am na sañ-sañu jiite ci jàkka ji waaye am na ay limite nag maanaam nekkul buur imaam la waaye du buur nag. non non ah, jegewul julli leen waxtu wi su ma ñëwul foog foggi nangam. wala imaam bi am na ci imaam yoo xam ne dañuy xaar sax. pour mm-hmm. pour nit ñi xam ne ñooy imaam. mais xaaj Malick loolu mais vraiment xaaj Malick kaay ma wax la. Mm. gis nga njiit boo gis nattu la. Ah, waa min al ibtilaa'i mm-hmm. an ya umma naas. Mm-hmm. moo xam ci côté bu mën a doon rek. ibtilaa la ci nattu yi. nga jiite aw nit. nattu la mm-hmm. parce que la tax muy nattu mooy néewaa na njiit loo xam ni dana mën a def yii ma wax ca mooy di baale mm-hmm. di jéggale di diisoo ñetti néew na mm-hmm. seetlu rek li ma la ba nopp wàcc yem ak nit ñi ndox su ko defee rek wàcc parce que su wàccul du ko mën a def non non su wàccul rek du ko mën a def day wàcc ba pare soog a mën a jéggale nga tax mu ne ah tolloo tolloo ak niveau gars yi mais bien parce que ñoo ko fa jiital ñoo ko jiital ñoo ko jiital ci sañ-sañu yàlla mais léeg-léeg nga fal nit mu defee ni moom imam bi defee ni moom moom lépp wala daal yaakaar ne jàkka ji sax su àdduwul kenn du àddu waru koo def nag waru koo def parce que koo gis mu def ko rek mokkalul aaya bi dama ni aaya bi ñëpp a ko waroon a mokkal ñi jàng arab nañ ko mokkal ñi jàng alquran ñi jàng français ñi jàng al dañ ko waroon a traduire ci langue yëpp di ko def ay surno di ko wane ci ci ci télé yi di ko wane fu nekk nit ñi di ko jàng mhm. parce su suñu ko gis nga ñett yi ak foo mën a nekk soo géré ñett rek da dem ca mooy alafu yërmande waaw ca mooy ngay ngay ngay ngay ngay def musaawara dégg al musaawara mhm. dégg nga istighfaar bi soo soog a ñëw dégg nga waaw ñett su amee rek bu ko defee lépp daal di mën a jag bi loolu amee nag yàlla ni xoolal kon loolu comme que a fexe ba nga xamee ni lii di dund ma jël ko génnee ci loo xam ni dafa dee waaye ni ko fa ñukk dem ca fekk lu dee moom loo xam ni dee na ma pare ma génnee ca lu dund luy dund ca mooy fekk koo xam ni kenn xamu ko kenn yàlla ne ma def ko ba ñëpp xam ko ne man la waaw parce que bu la kenn xamul existé woo même boo même boo existé jeex na tuxrijul mayyita minal hayy yàlla ne damay fekk loo xam ne lu dee la ku kenn xamul ba nga bala ngay misaal ay tool yu ñuy bay non ñëwal ci nit kii li muy dund li muy dund xam nga dañ koy misaale laa tool bi dangay ngay ruuj nga xam ni heure bii ñi ngi préparé ruuj suuf si wow gàncax gi wow. mu taw affaire nga daal di ruuj nga sax su su dégg nga su tawee nga daal di ji mu sax àll bi naat ñu ne gis nga deewoon na dund na d'accord misaal la bu baax mais ñëwal ci nit nit li muy dund nit la yàlla fonk. xaaj mhm. Malik nit mooy première jumtuwaayu yàlla ci kaw suuf. Mhm. première jumtuwaay yàlla ci kaw suuf nekkit xalifaam waaw nekkit xalifaam ci kaw suuf kooku lu muy wax looy wax rek jëlal exemplaire bi ci moom ba pare soog a dem fooy dem parce que parce que nit la yàlla waxal ak jinne gis nga tey soo bëggee joxe exemple ci 2STV yi da ngay ñëw ci kilifa gi ni ako baax ako def nangam ako def nangam ci ay xeeti yiw gis nga soo paree mën a ñëw ci xaaj eh, Malick ak ko baax eh, diw sàngam ma ko cameraman ak ko baax nangam nangam waaye su loolu amul rek su fekkee ni njiit la xas nga ko rek soo ñëwee ci emploi bi dafay doy waar. parce que sa xol du la may nga mën a am am afu bi pour mën a. non doo ko def. Mhm. doo ko def ca gis nga toujours njiit maanaam élément yi gën a am solo ki ñu jiital it war naa xam loolu. parce que soo gisee di jiital ku ñu faax parce que njiit liit bu ñu jël rek mbir mi teg ko mais nañu jël it ci ñi leen jiite. parce que léeg-léeg nga gis ku ñuy jiite koo xam ne xaas kenn mënu koo jiite ndax ak jàggam ndax ak féttéerlam ndax ak ñàkk xam kenn mënu koo jiite non kenn mënu koo jiite ca gis nga njiit loo gis yow mi topp ci gannaaw élément bu am importance nga dangaa ñaan dangaa war a ñaan yàlla mu mucc ki la jiite ki la jiite mucc mais lu jiite ci bopp xaas euh, ci nit xaas Malick du bopp mhm. nopp bi ñuy dégg fu mu nekk ci gimiñ gi ñuy waxe fu mu nekk ci bopp bakkan bi nga xam ne su noyyu amul woon doo doo doo dund fu mu nekk ci kaw bët bi ngay xoolee xaalis fu mu nekk mhm. loxo su daggee nit mënul dund tànk su daggee nit mënul dund xotti biir sax dañ koy def di ko opéré mais bopp du dagg xaalis Malick mhm. parce que njiit la du dagg mhm. kon na loxo ñaan bopp am mucc ak yiw ndax moo ko jiite na tànk ñaan bopp am yiw ak jàmm ndax moo ko jiite ne ko biir ñaan waaye heure boo xamee ni loxo ngi ci gannaaw bopp di ko gundu xataal wala muy fakkatal heure bu demee rek xamal ni mu dem ànd ak moom ala kulli haal ala bu ko defee yooyu gis nga suñ ko xamoon coow yi dootul bari mhm. parce que ki xëccoo bañ gañe ko dana dem ndànk ànd ak ka gañe nangu dogalu yàlla nangu dogalu yàlla moo xam xalaat bu mu am la jox ko ko su jëlee baax na su jëlul baax na yéeneem na ko rafetal su ko gëmee baax na su ko gëmul baax na heure bu demee ba xëccoo jotaan nga ñaan yàlla ni ko lee nga joxoon kee kat bëgg naa ko jox ma ko parce que moo koy joxe tuutil mun ko mënta sax moo koy joxe kenn du ko joxe. Mhm. ah. yàlla rek a yore kon bu ko defee ñi ñu gañe it nañu xam ni njiit yi yàllaa leen fi teg ñu respecté su loolu amoon rek coow lii am tey télé boo dégg di ngi ci Cheikh El Omar Fouti dafa waxoon Hadj Malick benn woy dafa ne woon ma ñëw man Cheikh Tidiane bu tey tagg Hadj Malick ako baax. ako yaru ako yaatal ako yamale ñëpp ëllëg ma ni ako bon ako def nii nee na mënuma koo nangu de hmm. matxun hmm. wa zammun hmm. fi maqaamin waaxidin min waaxidin li waaxidin nee na ajabaani na ma waaye ñaar yooyu <laughs> waaw wa zamun tagg ko léegi ah, xas ko léegi waaye nee na Cheikh Alhaji Maalik nee ma waaye man ah, man Cheikh Alhaji Omar Fouti mënuma koo dégg waaye benn nit tàggu ko tey ëllëg nga ŋàññi ko ci benn jotaay ci benn nit nee na waaye loolu yéem na ma waaye. waaw waaw ci moom lañuy def nag. Mhm. man naka la nit mën a téye nit di ko tag ci rajo télévision ecran ñëpp ga lay doon yoo xam ne ba ci cent ans njin ko garde nga jekki-jekki wàññeekuwaat di ko xasati. te yow ngay kenn nit yow ngay kenn nit ni yow da ngaa am dignité di yóotu waxuma sax am dignité waaye di yootu mboolem nit ñi nekk senegal yëpp nga ni da leen a bëgg a ca soo waxee lii tey su ëllëgee waxale xaas Malick fu ñu jëm comme comme comme li ma taquluuna maa laa tafaluuna jeex nag kaburan maqtan inda allah inda allah waaw taquluuna maa laa tafaluuna mhm. dégg nga mhm. parce que kabur ba ak maq la la tax mooy maanaam yam ba kee yenu nga ne attanu ko maa ko attan ci ngeen yem même poids ñu la ko joxee lam ca mënoon sax yoo doo ko mën la plupart soo gisee suñu président africain yi mhm. kenn ku dem rek ki mujj ñëw soo xoolee mooy euh, euh, ña koy xas suñ ñëwee duñ def lañ lam def la plupart parce que la ko def mooy yéene xaalisa moo amul. wala léegi li Mansa est-ce que léegi dafa dañu am ay ay marat fil xalb wala ay amraat fi xuluubina ndax ñun ci suñu xol yi dañ ci am ay amraat fi xuluubina ci suñu xol yi ñoo feebar wala nga xam ne boog ñun dañoo déggul waxu subhaanahu wa taala yàlla wala boog dañu mënta nekk même même ci suratul mulki euh, ci tabaaraka lazi bi yi yadihil mulku ci biir. faatarafu bi san bi jooju da gars yi sax yomul xiyam dem ne dañuy mhm. mais pourquoi ñun mun ñu al i'tiraaf mhm. alama xadallah mhm. yi la wala lan la lu xew euh, haaj malik dañoo am ay xol yoo xam ne dafa xomaag ca produit bi ñu ciy def ba mu ba mu setaat weex tàll nanguwuñ koo utiliser dañ koy jël ba pare dem sànni ko ci affaire la de. loolu rek la xol yi moo xomaag gis nga sa matière bu xomaag su xomaagee da ngay jël acide mhm. nga sotti ci di ko bomb ba mel na meloon malgré ñun danañu jënd acide bi mais malheureusement duñu ko utiliser dañ koy sànni xam nga mét xam nga liquide bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy lan mhm. mooy ngëm ga al iman ba mhm. Mm-hmm. nga gëm yàlla mooy gëm gë parce que heure boo gëmee yàlla rek da nga gëm dogal ci heure boo gëmee dogal rek amul luy ñëw ba écraser la non jamais xaaj Malick juróom yam tudd ca wala nablu war na kum yi mm-hmm. ba mu jeex bi cheyin min al xawf wal juu wa naqsi min al amwali wal anfus wa samarati wa basiri sabirin allazina isa asabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ak nam leen tagge ulaayka alayhimu salawaatuhum min rabbihim wa rahma wa ulaykumul muhtadun gis nga juróom yooyu mu indi maanaam xam nga ngëm dëgg-dëgg mooy tax nga mën a admé examen boobu juróom yooyu mu wax dinañ leen ci nattoo ca wala nabluwannakum ca wala nabluwannakum bi shay'in suratu baqara dégg nga ngëm rek moom mooy mooy mooy liquide bi yàlla mooy yàlla mooy wax ne dama leen di natt foofu daa leen natt ci ragal daa leen natt ci xiif daa leen natt ci ci ci mbay yi dégg nga manqué gàncax gi dégg nga manqué bakkan bu mu yóbbu wallaay faat gi nga ah ñàkk yooyu yëpp nag bala nga koo mën a nangu day fekk nga gëm yàlla gis nga Hajj Malick première lii lii lii garde maanaam personnel personnalité nit ci wàllu yàllaam mooy mu gëm yàlla wax ju bari du loolu dégg nga def lu bari du loolu yàlla soxlawul loolu xam nga lu mu wax ilayhi yasadul kalimu tayyibu wal amalu saalih mhm. yurfa'u mhm. amal saalih bi mooy nga gëm yàlla gëm yàlla yi si des yëpp ay caaxaan la danañu naan gëm nañ parce que xam nga gëm nañ bi mooy lañ mooy ñu ngi dem ci conférence yi <laughs> waaw mooy gëm nañ xam nga gëm nañ mooy lañ mooy suñ suñ noddee danañ dem julli ci jàkka ja mooy ngëm gi xam nga ngëm gi mooy lan mooy su la sa moroom woo ngénte wala ci da nga dem taxawal ko jox ko la nga am Mhm. mais malgré jënd nañ ko xam nga jël nañ produit parce que léegi nee nañ gëm nañ parce que ñi ngi julli ñi ngi sarxee ñi ngi oor ñi ngi dem màkka mais utiliser wuñ ko dañ koo jël sànni ko ci popel bi xam nga utiliser bi mooy lan mooy nga gëm ko soo dee julli gëm ko maanaam pratique bi dafa war a ànd ak ngëm non mais su ko amul du sotti parce que soo xoolee mu ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar mhm. xoolal inna salaata tanha gis nga su nayu bi amul rek salaatu bi jëriñu la dara mhm. parce que julli daf lay dàqal yenn yu yu sew sewaan yeeg xol yu xomaag yeeg. non mais jeex na ci tanha bi pour mu dàqal la ko il faut que nga am gëmu julli gi da ngay gëm gëmu julli gi julli du jaage ni allahu akbar allah kooku beneen domaine ñi ngi def xaarijul Maodo. Mhm. mais ci waxtaan wi moo moo ko moo ko laaj. ak lu mën a doon rek xaaj Malick su ngëm gi amul dem Makka baag sarxe baag dem ca conférence baag su ngëm gi amul loo lan la ñaata nit nga gis ñu jóge ca conférence ba bala ñoo agsi jëw téeméeri gor yu leen gën. ca jóge ci conférence su diine ba. te bala ñu kër ga yàq lépp. dama ni jëw téeméeri gor laa wax yoo xam ne ñoo ña ñuy jëw ñoo leen gën foofu ñu nekk seen der bi. ca ni ci ci ci yàlla lañ jóge gëm nañ gëmuñu ah ngëm du lu ñuy wax ci lamin kon nag xol yi yi yi nga xam ne dafa xomaag pour ñu man koo raxas il faut ku ñu gëm yàlla su gëm yàlla amee Hajj Malick duma ma la soxare. Hmm. mais loo ko man yow li nga wax nii dafa dafa doy waar loo ko mën a jàngate ak li yàlla wax ne. Mhm. alaa bi zikrillahi tatma inal xulub ndax zikrillahi googu day daal wàcc ci ibaadaat yi wala fa dem zikri bi rek non xaaj Malick zikru mooy al moo tax moo tax ma dugal ci noonu non mooy al gis nga xam nga émission bi ñu defoon daaw jéeg waxoon naa ni philosophie alquran yëpp mooy huddan wax li alquran di wax di bari bari yëpp huddan ba rek la soxla huddan huddan rek ba par parfois nag mu ne huddan lil muttaqin mooy loolu rek su ko waxee gis nga huddan bi maanaam taqwalaa bi du am pa tànk iman amul mm-hmm. non mënul am tànk iman amul mm-hmm. waaw waaw waaw yumkin ah. lu mën a ne la non non non moo am sax mm-hmm. moo am sax Hajj Malick moo am gis nga dama ni la dama ni la gis nga cancer ni yàlla bii ñu nekk ay militaire ci biir lay symbole ni yow militaire nga bokk nga ci armée militaire ak garaat bokkuñu Hajj Malick Mhm. xam nga man su ma su ma ñëwee ba ñu ne criti ma ni ma apt nga dégg nga ma sol ma sol sama sama tenue mhm. la mais ka nekk caporal wala sergent chef wala colonel du militaire. Ah, ok mais boog militaire bi la lañ lañ lañ soxla. grade ba kooku beneen affaire la heure boo nekkee ci cancer nu yàlla pour ñu xam ni yow militaire nga mooy al iman nga gëm yàlla d' abord. boo nekkee ci caserne yi ñu xam ne. caserne bii moom al moo fi moo fi élément bi am solo. moo fi élément bii symbole ni yow militaire nga. maanaam tëni bi gis nga tey grade boo mën a am tey Haj Malick mhm. soo génnoon sol grand bu du ma xam kii colonel la wala su fekkee ni xamuma la woon dëgg la wala du dëgg. ok ndax kenn du ko bind fenn. Ah? kenn du ko bind fenn. ki la xamul soo génnee du xam kii ustaas la wala du ustaas du ko xam su la xamul parce que ñu ko bind fen mais heure boo taxawee ci télévision wax dégg daal di jàngaa ñu ne ah ndeke kii ustaas la. parce que wane nga symbole bi. Mhm. kon nag jullit lay wane ni jullit la mooy day gëm yàlla su gëm yàlla amee lépp yeneen yi si des ay garaad la mën a ñëw dégg nga amal saalix ba taqwallaa ba niya xaalisa ba dégg nga yooyu yëpp mën a ñëw waaye su amul rek leneen loo mën a def du sotti ngistal moo koy moo koy indi. Hmm? dégg waaw loola tax bi mu paree nag mu def synthèse bi ca aaya ba dégg nga ni wa tarsuxu man tashaau bi xayril xisaab waaye yow bul bul sonn. bul sonn tës tës jii ngay jël jël sa xaalis di ko joxe dégg nga di def campagne di saaga nit ñi di di tuumaal koo xam ne deful dara nee na watar su xumantacha wërsëg maa koy joxe ci lu dul sonn kon teeyal rek mhm. heure boo ko waree am rek da nga ko jërul ci jaamu yàlla yi déedéet pouvoir maa koy joxe teeyal rek te gis nga risque boobu kat bul defe ni xaalis bu ñuy def ci poos la mhm. rek déedéet wala meññant mu ñuy bay déedéet ñu bari dañoo defee ni risque moo nag déedéet gis nga risque maanaam kilifteef gi la yàlla jox sax risque la wërsëg la santé sax risque la non santé sax risque la mhm, mhm. yëpp risque mhm. gis nga yooyu alquran ci boppam maanaam moo doon loo xam ni géej la gu kenn mënul xuus ba mu jeex kenn ku nekk fa la sa fa sa déggin tollu rek waaye risque du jaage nit looy dunde wala ne xee kii borom wërsëg la ndax ko pare déedéet nit mën na am wér ni nga ko waxee fekk ba wërsëg la ci moom mhm. mais ki jiite it wërsëg la ci moom waaw mhm. parce que yàlla rek la sob loola tax mu tar tarsuqu man tashaa bi xayril xisaab kon nopp noppalul mhm. defal li nga war a def rek mais bul saaga kenn bul iñaane kenn defal li nga war a def campagnal sa campagne ñëw toog heure boo ci waree jot rek da nga ci jot te jarul ngay ngay ngay jëw nit ñi. déedéet di leen saaga di leen dëkkale kër yu ñu jaru ko te demul noonu jaru ko jaru ko. du tax yàlla changé programme. non non non non du ko changé mukk du ko changé mukk mukk ci àdduna la mu xas ba décidé jeex na dégg nga même su demee ba koy changé it. day fekk ci coobareem la mais yow du ci yow nit ki baat yu ñaaw yi nga koy teg wala fakkastal boo koy takkasal su boobaay ci ci ci ci coobaram rek parce que waykat ba nee na maa bayna xamdata aynin wa intibaihi yugayaru llahu min xaalin ila xaal diggante xef yàlla dana ci changé lu ko neex soit mu nekk ci iraada wala mu nekk ci machi am am bu ko ci neex rek mu def ko innama amruhu isa arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun prisam boobu lay subhana la si bi yadi malakutu <laughs> kula shay'in wa ilayhi turjaun wa ilayhi turjaun ca jeexitalu yaasin wallahi ca suratu yaasin aha waaw kon daal kon daal ixtiraaf al ixtiraaf ala ma qada allah mhm. dafa nekk shay'un muhim jiddan non muhim ala hayati al insan ya aqi ala kulli xaal mhm. muhim jiddan mhm. parce que li tax mooy Haj Malik tey su fekkee ne damaa bokk ak yow palaasu liggéeyukaay yàlla def nga nekk sama sama chef mhm. ca la ñuy def mhm. mais Haj Malick seetal su fekkee ne awma xol bu bu bu bu nangu ni lii kat danaa ko yéene Haj Malick parce que mhm. yàllaa ko dogal Haj Malick est-ce que danaa am jàmm ca palaasu liggéey ba non du ma fa am jàmm soo nee tëll sama bët baa ngi tegu ci yow sama xol bii maa ngi la ci yéene lu bon lépp loo jëf lu rafet gisuma ko loo def lu ñaaw ma bëgg mu nit nit ñi feeñal ko mais loolu jàmm la du jàmm jàngoro la jàngoro la ca dafay dem ba laal soxor ca gis nga soxor mooy bàkkaar bi njëkk def ci kaw suuf alxasad alxasad waaw bi njëkk a def ci kaw bi njëkk a def yàlla ci ci ci ci ci ci dund bi mooy mooy soxor diggante haabil ak ca na ko jànge mhm. yeneen bi nee na maanaam soxor day lakk jëf yu baax ni sawara di lakke matt ba mu jeex tàkk ako mën a julli nga nga jóge te feebar wallaay ako mën a aj màkka lim dem kenn xamul ako mën a sarxe ako mën a dimbale mais koo gis yaa ngi koy soxare ki nga nekkal mu jiitale amoo ci moom jàmm moo xam sa chef la moo xam sa président de la république la moo xam sa lu mu mën a doon maanaam lépp loola ngay def xamal ni mi ngi ko e, jëf ju jooju maanaam mu yéene bu bon boobu mu ngi koy lakk waaw lu baax loo def rek mu ngi koy effacer comme comme phase ba mu jeex tàkk nga xëy dem doo fa fekk dara doo fa fekk dara kon bu ko defee Hadj Malick nañuy nangu dogal. tabaarakallah waaw suñu nangoo dogal rek. ñi féete gouvernement bi ki jiitu dana nangu dogal ci yërëm yërëm baale eh, dégg nga eh, diisoo su boobaa lépp jag ki nga xam ni nangu na dogal cañ gañe ko su boobaa dana ànd ak ki gañe di ko jox ay xalaat. di ko jàppale ba bis ñëw ñu bëgg a xëccoowaat mu ne yàlla man kat bëggaat naa la nga jox kee bëgg naa ko de jox ma su ko yàlla joxee baax na su ko yàlla joxul mu continué bu ko defee jàmm rek mooy am. société bi am jàmm. boole ci asabru xuloo du am xeex du am saagante du am tuumalante du am. ñu ñu ñu laytaayoo ko asabru nag. waaw muñ muñ muñ gi asabru laa yati illa bil xayr illa bil xayr isbiru wa sabiru wa rabitu xoolal xam nga lu mu ci teg xool ko wa taqu wa taqu wa taqu laa waaw muñ muñ wallaay wax nga dëgg <laughs> ñaari minute moom a defee euh, oustaz wax nga lu am solo euh, euh. émission bi tabaarakallaahu neex na lool <laughs> léegi nag nooy defee nooy tëjee nooy tëjee waaw ni may tëjee xanaa juróom yoo xam ni uh-huh. Seydina Aboubacar wax nga Aboubacrin Sadiq waaw waxoon na radiyallaahu anhu waaw wax nga dëgg de waxoon na ko de mu la yoo xam ne ci àddina bi waaw moo ko wax fokk ñu effacé ko cinq mu ngoog rapidement dafa ne am na juróom yoo xam ne uh-huh. ay lëndëm la uh-huh. ca dafa soxla nga am torche boo xam ni moom nga koy niite pour lëndëm yooyu doo ci mën a gaañu bu njëkk mooy nee na bëgg àdduna xobbu mhm. duniyaa mhm. waaw nee bëgg àdduna lëndëm la nee na torche bi nga xam ni moom ngay leerloo ba du la gaañ mooy taqwallah ragal yàlla waaw ittaqullaha xaqa tuqaatihi mhm. ca nag wala tamutunna illa wa antum muslimun alquran la ñaareel bi mooy azanbu zulmatun waaw bàkkaar bàkkaar nee lëndëm la waaw bàkkaar lëndëm la la nga xam ni mooy dindi bàkkaar bi mooy a taw ba tuub tuub yàlla ni tuubu ilallaahi tawbatan nasuha alquran la mhm. benn bu ci ne rek alquran da ko indi mhm. ñetteel bi mooy maanaam euh, lëndëmu bàmmeel mhm. zulmatul xabr lëndëm la lu xat ñu ne la ca yokk jël seng teg ca kaw wala ñu jël suuf teg ca kaw woon la gannaaw lëndëm mënta paase loolu xaaj Malick dégg nga waaw la lay génnee ci lëndëm gën nag mooy nga taxoo wax ni laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alquran la shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu hmm. wa ulul ilmi qaiman bil qist laa ilaha illa huwa azil akia la hmm. dégg nga bi mooy nee na euh, li nga xam ni mooy siraat jéggi siraat nee na lëndëm la hmm. waaw nee na soo ca bëggee mucc nag dégg la nga xam ni mooy mooy mooy mooy mooy lamp mooy al nga wóolu waaw nga wóolu uddu ullaha wa antum muuqinuuna bil ijaaba da ngay gëm wóolu mooy am décision dégg nga juróomeel bi nee na euh, mooy yowmul axira bis bu mujj ba nee na zulmatun lëndëm la ndax su boobaa kenn ku nekk sa mbir da lay doy yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man atallah bi qalbin salim amul sa asmali kaay seconde ma kaay dimbale ma déedéet amul loolu nee na nag la nga xam ne mooy làmp mooy amalu saalih ilayhi yasadul kalimu tayibu wal amalu saalih yurfaahu tabaarakallahu tabaarakallahu oustaz si ahmad tidiane boobu ñu ngi lay sant bu baax baax di la gërëm mbokk yi ñu doon seetaan tey lii la leen andi loon ci alxames ji yaakaar naa ne émission bi am na lu ngeen ci jàng ñu ngi leen di jox ndaje incha allah altine ak jàmm waaw ma nuyuwaat rek sama xalifa papa mhm. di imam Daouda Mbuub mhm. waaw di ko ñaanal yàlla wéral ko ak rakam oustaz Mouhamad Mbuub ak mboolem oustaz yëpp tabaarkalaaw kon nag mbokk yi ñu ngi leen di yéen tamit ñaanal jàmm yàlla yàlla defal ñu sutura wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu